alors tey bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni moo di sa métier sànq yaa ngi koy wax ci say njëlbeenu kàddu sa famille da nga leen di ci lépp est-ce que aujourd'hui ci métier bi nga nekk dafa am lenn loo ciy ragal. waaw euh, am na lu ma ci ragal muy sos. sos da nga ragal sos. waaw dama dama bokk na ci li ma mën a loo maanaam nit waxal la lu amul. waaw. Mhm. wala changer samay kàddu ba tey ci xeetu sos la. Mhm, mhm. cest à ma ma ma wax ne. Aïcha li mu sol keroog kat rafet na waaye dafa des. Mhm. nga dem ne Ahmed nee na Aïcha li sol dafa ñaaw loolu mën na ma rey. wala daa bon waaw loolu mën na ma rey. Mhm, mhm. man parce que dama di genre nit boo xam ne. maanaam man utuma filtre làqatuma ci samay appel. groupe bu ma bëgg a audio dama ciy audio. ku mu neex tas ko ku mu neex enregistré ma ku mu neex def ma dara mais bul transformer. parce que lépp lu may wax en privé. bu caméra yi tàkkee ñeme naa ko. mën ko wax en public. parce que j'ai je me suis pour mm. nekk benn Ameth bi may dugg ci métier bi li ma njëkk a xeex mooy nekk benn Ameth ndooy mm-hmm. mooy ko Ameth ndooy biy toog 7TV biy toog koñ ba biy toog këram ak famem biy toog entre amis benn Ameth bi la biy wax téléphone fu kenn nekkul. Mm-hmm. biy audio ci groupe fu kenn nekkul benn Ameth bi la. Mm-hmm. donc li may défendre ci télé bi moom laa gëm suñu demee ci groupe whatsapp di ko waxtaane loolu laay wax bu ma demee koñ ba loolu laay wax bu ma tëjoo man kese di wax téléphone loolu laay wax. que est-ce que bi nga demee ba décider def télé dugg ci média yi. Mm-hmm. bi nga demee ba décider def loolu est-ce que waroo woon pare pour ñu lay sosal. en fait xam question de question peut-être euh, bëgguma tooñ mais dinaa wax mot bi éducation la. Mm-hmm. man xawma jóg di wax pour nuwiir kenn. wala juste pour wala pour pour naqaral la yow. Mm-hmm. pour lu neex pap mm-hmm. wala pour wax dara ci pap pour lu neex kebe. après pap jële ci ngaañu ngaañu. maanaam loolu mënuma ko concevoir. dëgg c'est de la même manière nit ki toog war a jóg di sosol gor. pour lu neex beneen nit wala pour ndombal tànk moom wala pour positionnement wu boppam. te loolu ba léegi nit nu mu ko mënee wéet ak boroomam xam ne lii mu doon wax du dëgg da ko doon wax rek pour le plaisir de quelqu'un loolu mënuma ko concevoir ba léegi ba léegi nag <laughs> damay toog ba si yàgg di ko xalaat yenn saa yi ma gis yenn affaires yi sur les réseaux. Euh, yenn affaires si yow waaw récemment rek sama benn xarit. Mhm. bu dëkk Sébikotane mais elle est à Dakar maa ngi koy nuyu de passage Mami Kane. Mhm. di koy wax Fatima. loolu la ma doon wax mu ne ma quand la a par exemple des gens euh, yu di wax ne man jànguma neen <laughs> ay ree ko jàpp waaw mu ne affaire bi da ko dépasé quoi ma ne ko j'ai un autre ami boo xam ne actuellement mhm. douanier la ñu koy wax Ibulaay mhm. ma koy nuy moom it de passage ñoo bokkoon classe ak El Hadj Malick Ndiaye ñu naan ko la Ndiaye mhm. ñun trois ñooñu suñu cursus scolaire kenn mooy jël P keneen ki jël deux keneen ki jël trois suñu cursus scolaire yëpp. sa cursus fan la yem. man maa ngi yem euh, euh, bac terminal. am nga bac. non aw ma bac. amuloo bac d'accord mais jàng nga kanam dem nga ba bac. justement mën nga lire mais j'ai fait des mën nga lire mën nga wax français. li ma def ci ay formation su ma ko doon lim fii. Mhm. c'est pour cela que ma am casquette yu bari. Mhm.